الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يحذرنا صلى الله عليه وسلم من فساد آخر الزمان في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر هذا الحديث الشريف فيه خبر وإرشاد أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكسر السر وأسبابه وأنه عند ذلك يكون المتمسك بدينه من الناس قليلاً وهذا القليل في شدة ومشقة في شدة ومشقة عظيمة كهال القابد على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المدل فتن الشكوك والشبهات والإلحاد فتن الشهوة وانصراف الخلق إلى الدنيا وضعف الإيمان وهؤلاء المتمسكون القليلون هم أهل الفتن هم أهل الإيمان وهؤلاء المتمسكون القليلون هم أهل الإيمان من أفضل الخلق وأعظمهم قدرا عند الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mi ngi ñuy jubanti ci hadis bi nga xam ne anas ibnu malik moonu ko nettali yonent bi dañu jubanti ci yàqute jamono anas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dina mës a dikk ci nit ñi buñ demee ba àddina di waaj a jeex ci mujjantalu jamono nee na ku jàpp ci sa diine di nga mel ne di nga mujj mel ne ku dëgg ci xalu safara yonent bi moo doon nettali anas ne ko yéen a ngi yëm jamono joo xam ne ki téye ci diineem dina mujj a mel ni ku ngëpp ci xalu safara mu koy lakk hadis bi yonent bi doon nettali anas ñaari mbir ñoo ci nekk xabar la ak irshad yonent bi dafa jox anas ay xabaar ba pare orienté ko bu fekkee xabar bi yonent bi doon jox anas nee na ko bu demee ba aaxiru zaman nit ñi danañ yàqu nan lañ koy xàmmee mu ne lu baax day néew kenn dootul def lu baax wa yuksiru sar lu bon day bari nit ñi dañuy dem ba lu baaxoon mooy lu bon lu bon mooy lu baax ñépp dañuy am kersa def lu baax ñépp dañuy am kersa wax lu baax ñépp dañuy am kersa jëf jëf ju baax ñépp ci bon rek lañuy la ñuy jëm wa annahu inda zalik yonent bi ne anas bu ñu demee ba jamono boobu yakunu almutamassiku bi diinihi min annaas qalil mu ne diina ji dina mujj nekk ñi ciy téye ñu néew lañ ñu néew ñooy nekk julit ñeneen ñépp li ñu yor ci lislaam rek mooy ay tur ak ay melokaan amma jëf dootoo ko gisati kenn dootul jëf-jëfu lislaam kenn dootul nangoo nekk jullit ñépp dañuy fàq di roy yahuud yi ak nasaraan yi ak di leen def ay royukaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa hadha al qalil mu ne ñu tuuti ñooñu nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci seen diine ñu néew ñooñu nga xam ne ñoom dong ñooy nekk jullit fii shidda wa masaqa azima mu ne ñooñu dañuy nekk ci xat-xat dañuy nekk ci tar-tar bu méttee métti mooy li am tey kenn ci ñun nanguwul nekk jullit te boo gisee ku bëgg a dund diineem nga koy tuumaal ut kër goo ko dëkkal ut benn ticket boo ko takkal pour di ko ko xàmmee léeg-léeg sax ci barab yu mel nii nga xam ne ay barabu jaamukaay yàlla la da ngay gis nit ñi di fa daw lu tax parce que bañ a dégg dëggu yàlla léeg-léeg nga gis ci ay nit yu ñuy tànn diw moom diineem dafa tàng diw diineem dafa sedd diine du benn kese la bu jóge ci yàlla est-ce que ñaar la diine amu ci lu tàng amu ci lu sedd lépp ci yàlla tabaraka wa taala la bàyyee ko yonent moo ñëwoon di ko jàngale lu yonent wax moo baax moo baax lu yonent wax baaxul baaxul ak ku ko mun a def moo tax yonent bi mu ne ci jamono yooyu ci waxtu yooyu ki jàpp ci diineem day mel ne ku ngëpp ci xalu safara mu koy lakk gis nga tey ci sunu dundin ay mbir yoo xam ne buñ ko waxee da ngeen ci teg baaraam tey nit bu amoon doom yàlla wërsëgal ko mu ñëw ci tudd bi ñu tudd ba pare mu ne ñépp mën nañoo ñibbi nga gis ñu commencé wax waaye bu léew woon ngan di baaf indi musique ñépp ñëw ne est-ce que alhamdulilah lii mooy ngénte lii lañ xam wala ñaaree ban moo baax lan lañ jàngale ci diine même ci dëj nit day dee ñu suuli ko ñëwaat ñu ne fii la yem nga dégg ñu ne déedéet kii mënul yem fii ndax kii kilifa la foog ñu dajal ko waaw foog ñu dem indi ci nag loolu ban diine moo ko jàngale benn waay day dugg ci mbooloo asalaamu aleykum dib jigéen ñi ñu ne ko ni jàpp loxo mu ne asalaamaaleykum ñu ne xoolal maanaam li yonent bi wax ne ku bëgg a dund diine ci jamono ji dangaa mel ne ku ngëpp xalu safara mu lay lakk ci lañ nekk ci milieu yoo dem tey jigéen ñi liggéey bëgg a sàng seeni awra muur seeni yaram ne dañuy liggéey da ngay dégg ñu leen di xatal da ngay gis sax ku ñëw sol col gu yiw ñu ne la ah tey de da ngaa mel ne kuy dem baytillaahi alxaraam da ngaa mel ne tey kuy ziyaare ji yonent bi xoolal ki xëy si laa wax sol colu lislaam jigéen ji sol si xëy si col colu lislaam ci place bi muy liggéeyee da ngay dégg ñu koy tam dëmm waaw tey yow loo xewle xanaa boo fi jógee da ngay dem dëj ku dee ndax li mu sol lañ koy wax loolu bu ñëwee nag sol yi solu yahud sol solu nasaraan kenn du yëngatu mooy li yonent bi ne jamono bu ngeen toll mooy yéeneen ci aaxiru zaman ci mbon lu baax mooy lu bon ki dul nuyu jigéen ku bon la kii muur yaramam ku bon la ki dul déglu musique ku bon la gis ngeen kii jàng alxuraan ku bon la ki déglu musique nag ci sunu jamono ku baax a ngoog waaw bu dee jigéen muy bu génne yaramam ci biti naan di tee ngoog ku branché woo ngoog ku xam àdduna bu dee xale bu góor bu bënn noppam léttu génne silibam tubéy ji mu wàcc ko ba ci suuf ñu ne naan di tee ngoog saabaa ngoog loolu mooy sunu jamono tey jamono boo xam ne lu baax lu bon la lu bon lu baax la yonent bi mu ne fitanu sukuk musibaay sikki sàkka loo wax ci diina ji ñu ne ah li sikki sàkk lii la yàlla wax nga gis ku ciy sikki sàkk lii la yonent bi wax nga gis ku ciy sikki sàkk fitanu sukuk was subahaat ak ay lënd lëndëm ay lëndëm lëndëm xoolal tey li songu lislaam ci ay lëndëm lëndëm ci ay caaxaan yoo xam ne kenn xamul lan la loo xam ne yàlla waxu ko yonent waxu ko même ñu baax ñi ñuy roy ci réew mi tey Cheikh Ahmad Bamba bu dekki waatoon xool tarixa murit ni mu mel day rus alaaji Malik tey bu ñëwoon xool tarixa tijaan ni mu mel wallahi day rus ndax caaxaan yiñ ci dugal ay feccaki way ay taaxuraan musiba bu geneek tey ñu dugal ko ci diine ji soo waxee ñu ne la ci la bokk nan xoolaat suñu bopp yonent bi moo nuy jàngal te yonent bi du wax loo xam ne duñ ci teg bët fitanu sukuk wa subahaat wal ilhaad musibaay sikki sàkka musibaay lëndëm waaye musibaay weddi yàlla ñu ëpp ci réew mi dañoo weddi yàlla génn nañ ci lislaam bu yàgg da ngay gis ku gàddu sijaara di dem jàkk fekk dafa génn ci lislaam yéeféer la bu yàgg chaque jour ñu wax ne ni mu amee luy yàq njàpp noonu la amee luy yàq lislaam waa ji tey bu jàppoon ba pare war a dem jàkk mu teg benn tànk mu yëg ci yaramam ngelaw lu ci génn kooku day continuer day jàkk wala day delluwaat jàppi tontu bi mooy day delluwaat jàppi su dell su continuer dem julli ji amul julli noonu la amee ci ay mbir ci lislaam ku ko def génn nga ci lislaam même boo jullee te genn wàllu réew mi yëpp dañ koy def xoolal mbër yi bi ñu génn ci lislaam ni mu yàggee te ñun ñépp am nañ ay mbër dañuy seetaan te mbër génn na ci lislaam yéeféer mushrik bu yàgg te ñun ñépp am nañ ay mbër te mbër génn na ci lislaam bu yàgg ba mu ngemboo dem estaat la génn ci lislaam te ñun ñépp am nañ ay mbër xoolal ñiy dem ci xàmbkat yi ci xàmb ku sangu ci xamb génn nga ci lislaam yaa ki la yóbbu ak ki la sang te ñun ñëpp dañuy dem xamb néew na ci ñun ñu amul xamb sax xoolal ku takk béjjën xoolal xoolal xoolal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wa fitanu shahwaat ak bànneexi bakkan bànneexu bakkan ñaata ci ñun tey ñoo dul jaamu bànneexu bakkan lu bakkan bi bëgg rek lool la lu xol bi bëgg lool la bu dee lu baax bu dee lu bon lu mu mën a doon rek sa bakkan bëggee def nga sa bakkan bëggul bàyyi nga su bakkan bi bëggee nga sol lu bon nga sol nga lekk lu bon nga lekk nga naan lu bon nga naan nga jëm fu bon nga jëf nga dem def ñaata ci ñun tey ñooy njaaloo di takk ñaata doom yu ne judduwul ci yoon moo nekk ci Sénégal est-ce que loolu mës ngeen dégg ku ko ne araam na ñaata xoolal sunu doom yi góoreeg yu jigéen yi léegi col gi ñuy col daanaka toll nañ jamono boo xam ne jigéen amatul sër te xale yu jigéen yooyu fan la ñu génnee kaw asamaan tontu bi mooy déedéet ci biir suuf tontu bi mooy déedéet ci suñu biir kër yi lañ génnee kenn du wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wansiraafu lxalqi ila dunya wa dafi liman nit ñëpp du booyu nañ yàlla daal di jublu aduna aduna rek ñëpp a ngi daw ngir aduna aduna moo ñu jural sax ay nit di jaar di dugg ci gaal yi naan barsaq wala barza aduna moo tax aduna rek koo fi gis muy daw aduna lay daw te topp ci aduna di daw yàgg-yàgg bàyyi aduna dee ginnaaw ba nit ñi dumoo yàlla adduna lañ jublu koo fi gis mu yëngatu ci wàllu adduna la ñu dem ba nit ñi amatuñu ngor di fen ngir ay intérêt di sos di wor xoolal wor tey wor du dara taxaw fii léegi-léegi wax dara ànd ak ay nit nga dem ba ci biir nga jaay leen dem dëkk feneen c'est simple du dara soo waxee ñu ne la non c'est la c'est la démocratie ah c'est la vie c'est la c'est la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñooñu nga xam ne ñoo jàpp ci seen diine wa haulai almutamassikuna alqalilun hum ahlu liman min afdali alxalq wa azamuhum qadaran inda allah gis ngeen jamono boobu lu muy métti métti ee yéen ñooñu jàpp ci seen diine matt ko ak seeni dëgëj bu leen ko dara bàyyeeloo bu leen ko ndomba tànk bàyyeeloo bu leen ko pal bàyyeeloo yéen yàlla nee na yéen ñu tuuti ñooñu yéen ay ñoñu ngëm yéen a gën ci xeet wi yéen a ci gën a màgg daraja ci yàlla tabaraka wa taala li ngeen di tuuti tuuti yéen a fi gën bu ñu fàtte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu jàkkaarloog waa Quraysh di xeex ak ñoom keroog julli yi ci àddina bi yépp ñetti téeméer ak fukk ak ñett lañ ñett ñoom ñoo demoon Badr ñooy ñu góor ñi ñoo demoon Badr ñetti téeméer ak fukk ak ñett tuuti woon nañ trop yéeféer yi nekk junni waaye xoolal kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atun kasira bi iznillah wallahu maa sabirin yàlla nee na mbooloo mu tuuti suñu dëggoo gëm yàlla am iman yàlla nee na man maa ngi ànd ak ñoom kon jamono bi lu mu metti metti ki bëgg a dugg aljanna ki bëgg a roy yonent na ngëb ci diineem bu ko ko dara bàyyeeloo na jaamu yàlla na roy yonent lépp lu yonent indiwul na ko teg fee amul njëriñ ëllëg yowm alqiyaama aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أما الإرشادات فإنه صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة أن يوتنوا أنفسهم على هذه الحال وإن من صبر على دينه وإيمانه مع هذه الفتن والمعارضات فإن له عند الله أعلى درجة وسيعينه مولاه على ما يحب ويرضى فإن الثواب على القدر الثقة ويقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدغمه فاذا هو زهيق bu fekkee orientation yonent bi joxe ci hadis bi yàlla ay xabaar la rek yonent bi njub gi mu doon wax sahaaba yi mooy ñu diggu doomu ci seen bopp ñu ngëpp seen diine ñu muñ jaamu yàlla lu fitna di bari bari bari bari tey fitna yaa ngi toll ne vague géej wala mu ëpp ko lu fitna yi bari yonent bi nee na gaa yi nañu muñ ku muñ yàlla dina ko fay inna allaha maa sabirin ku muñ yaa ngi ànd ak yàlla yàlla nee na dinaa leen dimbali yéen ñi muñ yéen ñi muñ maa ngi ànd ak yéen yéen laa bëgg yàlla nee na yéen laa kontaan ci yéen yéen laa gërëm mbokk yi dëgg yàgg-yàgg day feeñ rek dëgg la laa budda an yantasir dëgg foog mu nekk ci kaw cooway bari rek bu kenn naagu ci yërmande yàlla wal muminu man yatamalak nafsahu fi hadihi lhaal jullit mooy ku téye boppam ci jamono jooju ngelaw li bañ laa yóbbu millions yi xale yu góor yi di dégg ci làmb ji bu mu leen yóbbu alal ju bari joo xam ne bu borom deeyee jahannama la jëm ak moom amul intérêt amul njëriñ stade yu fees yi ngeen di gis podium yu xumb yii bu mu fëkk kenn ci ñun ku ci dee jahannama nga jëm ak koo mën a àndal ak fu ñu la mën a suul caaxaan la fola amul benn njëriñ alal joo xam ne ëllëg da nga taxaw ci kanamu borom bi mu lay enquête foo ko jële fistin foo ko dugal yonent bi moo ko wax foo ko jële foo ko dugal ci lu mu mën a doon nag tey ñuy encouragé mbon musique waxal bàkkaar amul lu la neex defal fecc waxal lu la neex fo bëre théâtre lu la neex waxal encouragé mbon ci Sénégal kenn du encouragé lu baax ba pare ñu bëgg am jàmm ba pare ñu bëgg a dund vie bu normal munul nekk ku piir courant yi du fi jóge ba yowmal qiyaam fekk delluwuñ ci yàlla yàlla moo ko wax nguur guñ fi jële indi beneen fekk delluwuñ ci yàlla dañuy sonn yàlla moo ko wax tabaraka wa taala wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan maza maishatan danka yàlla nee na sama téere bi ñu ko du mooy ñu ne seen baqata da nee na bàcc ñépp réew mi seen baqata ba nee na bàcc ñépp sonn nañ lu tax parce que ci lu bon lañ nekk foog ñu tuub delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala foog ñu xam ne yoon yi ñu jaar du yoon yu yoon yoon yi mooy yoonu lislaam yoon yi mooy yoonu sayduna muhammad yoon yi mooy yoonu tabaraka wa taala bi mu ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaakum bihi laallakum tazakkaruun mbokk yi nañ leen dellu siwaat delluwaat ci biir kër yi delloo si njaboot yi delloo si suñu bopp delloo si soxna yi delloo si góor ñi ak jigéen ñi su ñëpp àndee dellu ci yàlla yàlla tobal ñu urus bu jógee ci kaw asamaan wàcc ci kaw suuf walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamaai wal ard yàlla nee na nit ñi bu ñu tuubee delluwaat ci man rek ma wàcc xéewal yi mu jógee kaw asamaan ñëw ci suuf feek loolu amul yàlla nee na man maa yor robinet bi dama koy tëj rek ñi ma du mooy ñëpp seen dund dana metti loolu yàlla bi mu ko waxee septième siècle la ba tey ñu ngi koy teg bët nañ leen tuub delluwaat ci yàlla allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahuma ya musabbit alqulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أهلك الكفرة والكافرين اللهم أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم وأمريكا وأنصاره اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقم الصلاة